ولي المنازل بعد eh, لا asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi rawatina sunu taalibe yi nu bokkal sëriñ bi ak xasaayid yi noo ngi leen di nuyu ci sunu kàddu yu kilifa la jiitu muy sunu kilifa gi nga xamante ni moo amee sunu ndigal ñu tënku ci moom muy Serigne Fallilou njaay ñoo ngi wax ci baatam ba ca topp muy sëñ Ablaye Seck mi nga xamante ni mooy sunu kilifa di sunu buntu ci sëñ Touba xasaay yi ñuy wax ci kàddoom di wax ci kilifteefam di waxit ci baatam ak suñu kilifa yi fi toog sëñ Abdoul Ahad Diouf ak sëñ Khadim Gueye ak jànkati xasaay yi yëpp ak mbooloo mi toog ñuy wax ci seen kàddu noo ngi leen di nuyu di sant yàlla bu baax. di sant Serigne Touba Khadim Rasoul di sant xasaayid yi mu ñu Serigne Touba booleel di sant Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mu baax mi nga xamante ni xéewal gii moo nu ko defal xam ni xasaayid yi mën naa faj mbooti biir yi ak mbooti biti yëpp ni na ngeen daje jàng yi ñun ñi nekk ci xasaayid yi di ci nab nabi guddeeg bëccëg mel na ni jox nañu cër sëdd nañu it ab cër sëdd nañu wàll xam ne it suñu jëf ci Sëñ tubaa bu baax a baax kon nag ñun ñi nga xamante ni ñoo farewoo xasaay yi di ko yëkkatil sëñ tubaa sëñ tubaa sedd ñu ko muy sunub cër ci sama kàddu yu kilifa yi ma tudd nga xamante ni ñenn am na ngant ñenn ñaa ngi nii toog ñoo ngi woo suñu bokki taalibe yi suñu bokki jullit yëpp sëñ Fallou Ndiaye mi ne ci bopp bi mi ngi woo ñëpp mbooleem daayira boo xamante ne nii dañoo seq ak yow xasaay te sëñ tubaa yi ñoo ngi lay woo ci bis bii Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké woote ngir ñu jàng ci xasaay te sëñ yi ngir mu faj aajo yi mbindeef yëpp di woote ci kàddu sëriñ Ablaye Seck suñu kilifa gu tedd gi toog moom tamit di wax ci baatam bu baax a baax muy tax si mu seexul xadim bi nga xamante ne nii mooy daayira bu mag bii nga xamante ne moo yoroon xasaayid yi fii ci Touba suñu kilifa yi yor ko ba tey ji ñoom sëñ Modou Faye ngi ak sëñ Mbacke Ndiaye ñoo ngi leen ci woo muy tax si mu seexul xadim di daayira bu mag bi di ci woo it waa daayira mooy bu naafi yi nga xam ne sëñ Fallou Ndiaye moo nekk ca ba ak sëriñ Ndiaye sa Ndiaye ak sëñ Ndongo Thiam ak sëriñ Fallou Ndiaye ak sëñ Xaadim Guèye mi nga xam ne mooy jëwriñu tuubaa gii ñu nekk di suñu jëwriñ ñun ñoo ngi ko ci woo di ci woo mbooleem mbootam ak ñëpp ak bokk yëpp di ci woo it Touba xasaayit social gi nga xamante ni sëñ Bay Loo Jom moo nekk ca booba ñuy ay jàmbaar yoo xamante ni dañuy liggéeyal sëñ Touba fu nekk di jàppalante ci seen biir ci xasaayit di ko ànd di ko liggéey liggéey bu rafet rawatina ahlu xasaayit yi nga xamante ni ñoom tamit ñoo nekk ca euh, Ndakaaru di fa liggéey liggéey bu tedd boobu waaw pencum ak pencum xasaayit nga xam ne sëñ Abdou Wade moo nekk ca booba ñoo ngi leen ci woo di ci woo daal mbooleem koo xamante ne nii ñu seq ak yow xasaayit yi seq yow liggéey bii di woo ci bis bi tedd bii nga xamante ni Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké daf ko def bisu ñaan di bisu faju aajo di bis boo xamante ni mën naa faj aajo jaam ñi ci àdduna ak a gën jëm di woo ñëpp ñu teewal seen xol teewal seen jëmm teewal seen pas-pas bu baax rafetal dikkin wi ñu ànd ko ak liggéey defe ko ci ndigal li ñu ko sëñ Muntaxa Mbàkke joxe ñun ñëpp bu ñu noppee ñu fas ci defarug àdduna ak alaaxira ak nëx-nëxi àdduna yeeg yu alaaxira yëpp sunu ajo fajo ci biir ak biti ba moom lim ci dëxëñ ak lim ci bëgg mu am ko ni mu ko bëggee. su ngeen gisee sunu jëmm ak sunu kàddu jóg dara waralu ko lu dul ndigal li nga xam ne sëñ tubaa yi Cheikh Mouhamadul taxa joxe na ko ci liggéeyal borom tubaa te liggéeyal ko ci xasaayid yi muy bis boo xam ne dafa wax ne dafa bëgg ñëpp ñu dellu ci sëñ Touba loolu nag di wax ju rëy kon nag sëñ Mountakha soññee na soññee boo xam ne kenn ku ci ne ci noonu war ngaa fabuwaat war ngaa takkaat sa laxasaay joxaat sëñ Touba yitte ju kawe yitte joo joxoon sëñ Touba woo def sëñ muntaxaa bi war naa tax bu doon junni boo mënee fabaat ay milliards et milliards ci pësteef nga defaat ko ndax jëm ci sëñ Tuubaa moom rek mooy alal jëm ci sëñ Tuubaa mooy xam-xam jëm ci sëñ Tuubaa mooy am-am ci àddina ak ci àllaaxira kon nag ndigal laa ngoog laa tafxandoo sayeen bi xëyri is ni ñu fexe ba ñun ñi nga xam ne ñoo nekkal sëñ Tuubaa ci toolu toolam bii muy xasaayid di te sëñ baa woote bis sëñ Saaliw sëñ Tuubaa woote bisu xasida euh, di bis boo xam ne nee na ñi koy jàng ak ñi koy durus ak ñi koy yëkkati ñooñu la jiital ci woto bi kon nag kenn ku ci ne ci noonu bis bi sa bisa mooy saw sas na ko sëñ Abdou Lahad waxee woon kenn ku ci ne war ngaa yor saw sag mat di ko langa la ngay jëme ci sëñ Touba kon nag maa ngi woo ñi nga xam ne mooy taalibe yi murid yëpp mooy jullit yëpp mooy Sénégal mooy àdduna bi yëpp rawatina xidmatul xadim bi nga xam ne mboolem daayira yi ànd ak man yëpp te sëñ Touba rekk tax te ñëpp sëñ Saliou tudde woon xidmatul xadim bi nekk diaspora bi nekk ci dëkk bi ci Touba bi nekk ci région yi ci Sénégal yëpp ak Afrique yëpp ndax fenn fu na ne bi am na fa ñu ngi woo ñëpp. ñu ngi dellu si rek di fàttali ay kaddu di ko teg ci kàddu yi bokk yu baax yi jiitu mu mel ni wax ji sax mat na sëkk ndax ndigal li ci sëñ Touba la bàyyi ko Cheikh Mountakha dikk ci jànkate xaside yi booba ak léegi yaakaar naa ku dib taalibe te mbir mi ñor la. xam nga ci lu bare bare bari waaye bokk ci mbir ba noppi ñu woo la ca jox la ca la nga moom ne la na ko saytu dafa dafa neex lool ci mbir loolu ma waral jataay bii may yëkkat sama kàddu nag ci daay daayira ci turu daayira Tahsinu Seexul Xadim ci njiitu Serigne Talla Mbaye ak Serigne Mbacke njaay mi topp ci moom ak mboolem ahlu bi yëpp fu ci waay nekk li ko tàmbalee sowu jant ba Saloum ba Ndar ba Louga ku bokk ci Tahsinu Seexul Xadim na nga xam ne ndigal li nga xam ne moom la Seex Mouhamadou Mountakha Mbacké ñi ma ko teg seen loxo ñu di jëwriñ cër biñ ci moom jox nañ ñu ko ba mu mat sëkk te itam cër bi rafet na rafetaay boo xam ne bii bett nañu sax ndax ku doon dégg dangay jàpp ne fee rek la jëm waaye bi ñu jógee la ñoo xam ne li wolof di lépp naa bañu naa jatu leen bañ naa jóg leen fekk na soccet jatu dal nañ ci jataay bii tax na tànnal nañu cër boo xam ne bii barab bii nga xam ne Cheikh Abdoulaye Mbacke moo ci joxe woon ndigal naka jekk jàngkati xasida yu mag yi daan fi daje di fi dundoo guddik Serigne Touba gi ñeneen ñi defe gàmmoo bés boobu lañ barab bii la ñu tànnal ñu ngi soññ bu baax a baax suñ bopp di soññ képp koo xam ne dangaa yor micro di yëkkati xasida nanga xam ne suñ borom defal na la teraanga joo xamante ne bii ne ci barkeb sëñ bi la nga ko mën a fayee man koo delloo li njukkal mooy bis bii nu dëgmal ci ndigalul Cheikh Mouhamadoul Mountakha bépp jàngkat bu mu mën a doon ngalawaay na nga jàpp ne lii sëñ bi bëgg yow yaa ko mën a mën a def ci yow la mën a jaare am kuy ñëw nanga sol yére yu set yëg ya nga gën a taamu ci sa col te nga sellal sa jëmm teyal sam xel sellal sa xol xam ne ñu fàttaliku wax ba sëñ Muntaxa waxoon ne bu xare amoon tey jii jànkati xasida yi ñooy nekk ca kanam moom kat naka jekk xasida mas naa am cër ndaka jekk waaye waaye moom bi mu dikkee dafa gën a dooleel ñooñ xasida ànd ak ñooñ xasida kon nag ngelawaay nañ xam ne ni sëñ Abdoulaye Seck di amee programme war a jàngi dëkk sàngam kay jàngulu ne man mii kat nii laa bëggee jàng yéen noonu la sëñ Muntaxa amee programme nañ xam ne àllarba la 11 août programme sëñ Muntaxa la moom moonu programme ñun jàngkati xasida yi incha allah nañ ko déglu ñim ñu booleel. nañ ko waxee ñu fas ko yéenee defe noona buñ ko defee ragal naa ne danañ ci am ngërëmal sëriñ Touba te moom rek lañ ciy sàkku. di ngeen nuyu mbokki jullit yi di nuyu mbokki taalibe yi di nuyu suñu mbokk murid saadax yi nga xamante ne bii dana lañ fay fekk ci wàccaayu li nga xamante ne bii sëriñ bi santaane ne ko mu jëm ci ñàngum xasida moo xamante ne bii day am ci jumaa ju mag ji ak li ko wër ci benn fan e muharam mu mel ni ndigal li ñoom dañ cee am xaas ndax sëriñ bi li bëgg dafa mel ni ci xasida la wax woote am ñàng moo xamante ni bii ñàng mu sell te wër ànd ak teewlu ci di ko durus ak di ko mawlut ak di ko rajas àgg sax ci wax ne kuréel bu nekk la muy jàng bu mu bokk sa morom la muy jàng ci yaatal mu mel ni loolu nag ñu délégation bi tëddee dañoo ànd ak waa kër sëñ am sa yi muy sëñ ak sëñ Mambay Guèye ak sëñ Abo Dieng boo ci wetu daara ji maa ci ànd ak sëñ Ibrahima Ñing ak sëñ Cheikh ak sëñ Aliou Guèye sëñ Xoba Seen ak sëñ Omar Diouf ñu ñëw teewal fi sëriñ Youssou ngir ànd ak yéen liggéey bi te xam ne bi sëriñ bi diglee ba su tey gis nañ ne ndigal li jëlee nañ ko noo xamante ni dëppoo naag ni ko sëñ bi bëggee moo fas yéene ko dundal kon xam naa dama jox sëñ Modou Bey rek mu indi si ay kàddu su ko defee ñu leeral liggéey bi nan lañ ko doxalee ba kenn ku ci ne boo dégloo kàddu yi di nga xam ne lu noos la. luñ tënk la ndax dañ cee bëgg a jariñu ndax mbir bu fekkee ne dafa bàyyeekoo ci sëriñ bi mu am nu mu ko bëggee na mu ko bëggee rek foofu la ñuy fexee jaar ngir dajante ci lam ci bëgg ak lam ci dëxal kon ma wax sëñ Modou Bey mu indi kàddu yi nga xamante ni bii mooy kàddu njëlbeen gi bu ko defee bu noppee ñu jublu carrément leeral nag bis bi li ko waral ak yan matuwaay lañ jël ngir kenn ku ci ne boo jógee teg sa tànk. teg ko ci foo xamante ne bi dana dëppoog liñ santaane ak liñ dëgg mu maanaam mu demee nii barik li allahumma fi kulliyati waj'al ka a'malil xiyaari niyati kun ya alim ya xabir habliya min yawmina haza wa xud li suuliya wa hablana almurada fi asura وثبي مكايدا مدحورا إلى سوانا ولتقد لنا الغرد ولتتقبل كلمي بلا عرد وهب لنا الأمن مع النجاة واليمن والتيسير والمنات